wax la nag ñenn ñu ne fan la ñuy armale fa dul xulayfa ci dul xulayfa li tayba ñeel na waa madina maanaam ba ñuy wax dul xulayfa waa madina ñoo ko moom ñoo fay armale ak képp koo xam ne romb nga foofu rek yéena bokk bérébu armalowukaay li shaami ñeel na waa saam waa misra ak waa misra al juhufa tu juhufa koo xam ne nga bàyyi ko fii ci sow bi wala nga bàyyi ko shaam wala nga bàyyi ko misra fu ñuy wax al juhfatu mooy bérébu armalukaay ba ci yow ñun ñi foofu lañ bokk bu fekkee dañ koo awee ci suñu yoon wu njëkk wa waaye léegi waa Sénégal dañ koy awee ci avion yi jaari Madina daal di bokk ak waa Madina fenn fu ñu armale muy Dul Xulayfa Dul Xulayfa ñu miine ko léegi biiru xal yi wala ab yaaru al yi xarnun xarnu li naj dun ñel na waa naj di ku dëkk naj du mbaa foofa ngay romb boo dee ñëw béréb bu ñuy wax xarnu foofa ngay armale daatu xirqin daatu xirq lil xiraaq yi ñeel na waa xiraaq koo xam ne ngaa dëkk xiraaq wala foofu ngay romb boo dee ñëw kon daatu xirq foofu ngay armale yalam lamul yamani ak yalam lami waa yaman ku dëkk yaman mbaa foofu ngay romb boo dee ñëw kon fu ñuy wax yalam lam mooy sa armalowukaay baal topp na dama ko firee atiha aji dikkal seen wi faaxun ak dëppoo borom saraa ba nag moom da koo saraa wi faax ji moom da koo saraa ma foolun min ajlihi waaye ni maanaam yi moom rek mooy buñ ne béréb sàngam waa nangama ko moom xamal ne képp koo xam ne foofa nga romb rek dal ngay bokk ak ñoom armalowukaay boobee ba tey saa yoo demee ba tolloog benn miixa rek nga xam dem nga ba tóoroog moom tolloog moom rek mën ngaa daal di armal tajarrudun akuk summiku minal maxyiti ci lépp lu ñu ñaw bokk na ci warigar yi bu dee góor bu xasee armal bañ a solati lu ñu ñaw ba mën a wër ab cër bu dee jigéen nag moom mën naa sol lu ñu ñaw te du wàññi dara talbiyatun ak wax labayka boo xasee armal fi saasa na nga wax labayka bu fekkee waxoo labayka benn yoon mbaa da nga koy yeex a wax ci gannaaw ba nga armalee alamaan dal lay war labayka boo koy wax da ngay wax ne labayka allahumma labayk labayka la sharika laka labayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak noonu la ñuy waxee labayka wal xalqu watuga ma aram yil jimaar yi ànd ak sànni jamra ya tawfiyatun ak matal la bokk na ci warugar yi watu ca fañ la ko digale bu dee góor moom watu lay def bu dee jigéen nag moom day jemp góor nag moom watu daa gën waaye bu jempo it mu baax waaye fañ ko ko digale daal buñ ci àggee daañu ko wax na xam ne loolu warugar la ba tey sànni jamra yi daañu leeral jamra yi ni mu toll muy ñetti jamra ak nu mu demee daal yëpp daañu ko leeral bu ca bàyyee benn mbaam bàyyi yëpp ñooye moo bàyyi na waru gar alamaan daal di koy war wa in turid dem na ngaa namm tartiiba xajj ka toftale sak aj ismahan na nga dégg bayaana ak biralam wastaj mi xante nga sàkkoo dajale ak di na xel ma min ko ci yow ñene boo bëggee tegale sak aj nam tegaloo loo def xam la ca topp loo def xam la ca topp déglu ma bu baax a baax te teewal sam xel jàpp li may wax in ji ta ndéem dikkal nga raabixan raabix te nazaf na nga set waxta sil te nga te nga sangu ka waaj bi ni ki aji waar moom mi taalif daa bokk ci waa soowu bi nga xam ne fa nga wax ni mooy aljuhfatu mooy seen armalawukaay raabix bee mu wax nag daa bokk ci juhfa mu ne kon nag boo ñëwee ba foofa na nga sangu nit ñi sangoo janaaba ndax ca ngaay loolu sunna la ci armal su ko defee nag waaye tasil dana jokk bi suróoxi ca tàmbali ka maanaam boo sangoo ba noppi da ngay daal di armal fa saasa ndax dañoo bëgg ca ngaay li sës ci armal gi loolu mu ne tanazaf na nga set dafa bëgg a wax bala ngaa sangu mën ngaa def lu mel ne wat kawari naq ak lewi saywee ak lu mel ne xus kawari poqataan ak yu demee noonu bala ngaa sangu nga def yooyu wal bas solal rida làmbaay wa usratan ak teraxlaay naa alay ni ak ñaari dàll wastas xib te nga àndaaleeg alhadiya addiyuma wa rakk xatay ni ak ñaari rakka te huma ñoom ñaari rakka ñi biir kaafiroon nekk na ci suratul kaafiroon su mal ixlaas topp lixlaas nee na boo sangoo ba noppi dangay sol yére yi armal maa ndegam góor nga ñu aaye la sol yére yu ñëw da ngay wut ay dàlli carax wut terax laay wut ak làmbaay teg ca bu dee jigéen nag moom ñu ko waxee mën naa sol yëre yu ñaw waaye góor moom bu solee yëre yu ñaw gannaaw bu mu armalee rek daal di war am alamaan li tax ñu wax itam daal di ci rax mooy du sañ a sol ay bot lu may daa amul yeneen te boobaa itam da leen dagg day dagg bot yi ba dojar ja di feeñ nga xam ne day gàtt gàtt moom bot ya ba du ëmb dojar ya su ko defee nag ndegam sam nga ba àggal nga julli ñaari rakka ndegam waxtu wa dagan naa naafila rakk ya gannaaw faatiha loo jàng bu baax waaye taamu nañ ci ñaari saar yi mu wax mooy rakk bu jëkk bu gannaaw faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun rakkam ñaareel ba gannaaw faatiha qul huwallaahu ahad fa in rakkibta ndem war nga aw mashita wala nga dox ahriman na nga armal bi niyatin ci yéene tasxabu ju di àndaaleeg tasxabu ju di àndaaleeg xawlan wax aw xamal wala jëf ka machine ni ki dox aw talbiit wala wax la bayka mi maaca la nga xam ne it tasala jokk na ndegam sangu nga sol nga sa yére armal te waxtu wa dagan naa naa fi la julli nga ñaar rakk ngay wax ci sama xel ne suñu boroom yéene na ma aj sa néeg bii yombalal ma ko te nangul ma ko yéene boobu ñett la mën ngaa yéene aju kese moo tudd ifraad mën ngaa yéene yaar yëpp benn yoon muy aj ak xumra mu tudd xiraan mën ngaa yéene xumra kese def ko ba àggal bu àggee nga aj teg ca mu tudd atamatoom lu ci nekk mën naa nekk am na benn kaset bu ñu jagleel mbirum aj leeral nañ ko ca bu baax a baax jàppal ne nag jëmmi armal ci boppam moom mooy fas nga fas ca xol ba def aj màkka googee la ciy ànd nag ci wax la bayka mbaa jëf di ki jóg dox lu ci kaaba nga fas ko yéene wër yooyu yëpp dafa taq ca armal ga rek waaye jëmmi armal gi moom mooy jëmmi yéene ji rek boo xasee yéene rek armal nga wa jaddidan ha na nga yeesal la bayka ja kullama tajaddadat saa yu yeesee xaalun mbir wa in sallayta ak ndeem julli nga soo xasee armal nag ba tàmbalee wax la bayka la bayka ji doo ko bàyyi da nga koy taqoo lu may nag boo sonnee noppalu bu amee lu la dog mel ne lekk wala naan wala nuyoo ña nga taseel mbaa nelaw yooyu su loolee jeexee nga dellu ko yeesalaat ba ba ngay dem arafa daan wax boo demee arafa nag na ngay bàyyi la bayka ci aj yépp doo ko waxati mukk-mukk waaye daal lépp lu yees loolu tey wax la bayka ji rek bu loola jeexee na nga koy yeesalaat ni ki sax noonu mu waxee boo jullee ba noppi xam nga jullikat lay tey wax la bayka ak yeneen yu baree bare waaye lu la gàllankoor boo waxoo ko rek ba noppee delluwaat ca kon la béykat dañoo taamu nga digg doomu ci wax gi doo ko saxoo saa yu nekk ba mu sàppi la digg doomu itam ci sa kàddu doo ko yëkkati ci kaw lool bay bay xëx doo ko suufeel lool ndegam góor nga waaye bu dee jigéen nag moom la béykaam da koy wax ci suuf rek jigéen moom day araam mu yëkkati kàddoom moo xam ci nodd la moo xam ci sikkar la moo xam ci julli la moo xam ci wax la béyka la su ma indana topp dem jege na makkatu makka fax tasil na nga sangoo bi siituwan ci siituwan bilaa dal kin ci ak ragg dañoo bëgg a wax ne digle nañu kuy bëgg a dugg màkka mu sangu cangaay lu mel ne cangaayul janaaba waaye nag moom du bomb yaram wa li tax na nga sangoo ci siituwan nag daa jàpp ne moom fa mu doon taalibe ku fa aw bu ñëwee ba siituwan foofa ngay sangoo waaye jàppal ne bu fekkee ne keneen la itam moom na sangu rek balaa dugg màkka cangaay loolee lu ñu taamu la waaye nag du bomb day sot ndox rek bàyyi wadd xulan te nga duggee màkk min ku min kadat taniyati ci kadat taniya maanaam sopp nañ booy dugg màkk nga duggi ko mbedd mi ñu wax kada ut taniya boo ko duggee bu baax waaye nag taamu nañ nga duggi ko ci moomu ida wasalta ndem àgg nga lil bi yooti jëm ci néegi màkk ya fatrukan na nga bàyyi talbeetan wax la bayka wa kulla shuhrin ak bépp soxla waslu kan tega soobu lil bayti ñeel kaaba ga min baabi salaami ci baabu salaam wasalim tega foon alxajara doj wa al aswad way aji ñuul kàbbir kàbbaral wa atimma te nga matal sabaxata ashwaat juróom-ñaari wër bi ci moom waxadi yasara te mbir moom càmmooñu na moom kaaba ga wa kàbbiran te nga kàbbar mu xabbilan mbir mu nga aji foon daakal xajara woowee doj mataatu xaadiyi saa yoo tolloonteeg moom nee na soo agsee màkk ngay bàyyi soxla yépp fas yéenee wër kaaba gi wërub nuyoo bañ la waxoon wër bi nag moom day aajowoo nga ànd ak laab dana ko wax léegi ànd ak sàng sa awra du ca mën a ñàkk tey booy wër néeg bi ne la néeg bi féete càmmooñ bu mu la féete ndeyjoor la nga njëkk a def na bala ngaa tàmbalee wër mooy da ngay jawali doj wa ca kaaba ga tudd alxajar al aswad daal di waaxu foon ko boo siggee ba siggi siggi mat nag nga door a tàmbali xam ne foofu la sa wóor tàmbalee su fekkee mënoo koo foon mënoo ca àgg nag nga wax nga wax allah akbar te mépp sag foon ndax mënoo ca àgg boo ko mën raay sa loxo sax nga raay ko sa loxo jël sa loxo teg sa gimiñ baax na waaye ndegam mënoo koo foon sa gimiñ mënoo caa teg sa loxo daal da ngay mépp sag foon rek daal di wax allah akbar xam ne foofu la sa wóor tàmbalee nag boo waree ba agsiwaat foofee nga tàmbalee woon am nga benn yoon bu njëkk bi nag moom nga nga foon doj wi yoon bu njëkk bi nga foon doj wi ndegam mën nga ko sunna la yoon ya ca des boo tolloog doj wa nga jàdd foon ko lu ñu sopp la waaye agul ci sunna te sax doj wi ñuy wax alxajar al aswat moo tax ñuy wax foon ji waaye bu dee tonk ba ñuy wax al ruknu al yamaan yi moom dana ko wax léegi saa yoo tolloon teeg moom da nga koy raay ak sa loxo rek jël sa loxo teg sa gimiñ te bañ a mu ci loxo ba waaye waaye ar rukun alyamaan yi moom boo ko mënee fóon ak sa gimiñ itam du tax nga fóon kook sa gimiñ moo tax mu ne kazaniki ni alyamaan yi ar rukun alyamaan yi laakin na saa waaye kii moom bi yee di nekk na ci loxo xus jàppal bayaan yi sama biral ar rukun alyamaan yi bokkut ak al xajar al aswad ar rukun alyamaan yi moom boo tolloog moom na nga koy raayal sa loxo rek jël sa loxo teg sa gimiñ ni ma ko waxee woon léegi te bañ a muucu sa loxo il lam tasil de mun laa àgg dil xajari ba ca doj wa il mas kon na nga ko laal bil yedi ak loxo wa dax te nga teg loxo ba xalal fami ci gimiñ ga wa kabir te nga kabar taq te di kon ngoroy doon naa ko wax léegi doj wi ci kaaba gi su fekkee ni mën la caa àgg ba fóon ko sa gimiñ waaye mën nga caa teg sa loxo nga cay teg sa loxo wala bëti ko sa loxo bi nga teg ko ci sa gimiñ moom sa loxo boobee te bañ koo muucu tey nag bul fàtte wax allahu akbar ci yooyu jamono su fekkee nag ni ma ko waxee woon mënoo koo fóon ak gimiñ mënoo koo laal ak loxo ni ki jamono yi ni muy xate kon na ngay tolloog moom rek daal di wax allahu akbar ba noppi nag mépp sag fóon war mul na nga lagg salaasa ñetti yoon wam si te nga dox ba xandu ci gannaaw ba arbaxan yenti yoon maanaam bu fekkee ne góor la dañuy taamu wër bii nga xam ne mooy wër bu njëkk bi muy wër bu nuyoo bi ñetti yoon njëkk ya mu lagg ko lagg nag boo ko dee seet wees na dox ndànk te agul ci daw bu baax a baax kon du war a sori ñukk bu dee jigéen moom day dox na mën a doxee rek te sax lagg bi bu dee góor itam day fekk mu yaatu ba mën ko waaye léegi ni muy xate xam daan kenn du mën a daw kon nu mën a doxee rek baax na bu laggee yoon njëkk yi nag yent yoon yi ca topp moom mu dox ko na mën a doxee aw xan na nga tàbbal xalfal maqaam yi ci gannaaw maqaamu ibrahim rakk xatey ni ñaari rakka gannaaw boo wëree ba noppi nag nga dem fa ñuy wax maqaamu ibrahim ca gannaawam julli fa ñaari rakka muy ñaar rakka yu wër ga waddu te nga ñaan bi maa siita ca la la soob la dal multasam yi fa al multasam al multasam mooy la nekk diggante bunt ba ak doj wa ca kaaba ga diggante boobee la ñuy wax al multasam boo waree ba noppi sopp nañ nga ñaan foofee loo bëgg rek ñaan ko fa ñaanaale ko fa koo bëgg a ñaanal léegi nag wasalim na nga fóonaat alxajara doj wa al aswad way aji ñuul baax du ci gannaaw ba wax ruju te nga génn illa safa jëm safa xam nga nee nga woon wër kaaba gi dafa war a sës ci dox safa ak marwa kon nag boo jullee ñaar rakkay wër ga ba noppi dox safa ak marwa moo ci war a sës waaye dañoo bëgg nga jaaraat ca kaaba ga soo mënee foon doj wa nga foon ko door a génne foofu na wuti safa safa moom moom ngay njëkkee faqif te nga taxaw mustaqbilan mbir ngay aj jublu xibla xale yi ci kaw safa suma kabbiran topp nga kabbar wa halilan te nga wax laa ilaha illallah soo àggee ba safa da nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloo kaaba gi di wax allahu akbar di ñaan ak wax laa ilaha illallah wasaate nga dox li marwat jëm ci marwa faqif te nga taxaw mis la safa kem safa boo jógee ca safa nga jàll ba ca marwa bu ko defee nag marwa aw daj la moom it nga yéeg ba ca kaw jàkkaarloo kaaba gi ñaan kem la nga mën door a wàcc su ko defee loolu nag benn yoon la waaye diggante safa ak marwa dafa am diggante bu ñu wooyee batnul masin des na ko wax ba tey diggante ñaari poto yu nëtëx ya diggante boobu ba fa tolloo da ngay gaaw ba weesu ko moo xam ca dem ba la moo xam ca wàññiku ba la moom na nga gaaw rek ba weesu ko boo ko weesoo nag war a tàmbali doxaat ndànk moo tax mu ne waxu ba te nga ñukk fii batnul masil ci batnul masil saqati faa mbir mu ngay boroomu xeñtu batnul masil googu moom lañ mii ne léegi diggante ñaari poto yu natax ya boo ci tolloon nga gaaw ba weesu ko waaye nag gaaw ci diggante boobu itam ci góor rekk lañ koy sàkku moom sunna la ci moom waaye bu dee jigéen moom day doxe rek na mu mën a doxe kon jigéen wuti naa góor ci googu wàll soo bàyyi ko nag léegi safaa dem ba ca marwa am nga aw yoon soo bàyyi ko ci marwa ñëwaat ci safaa mu yaari yoon nga xam dem aw yoon la delsi aw yoon la moo tax mën naa tax fu da nga taxaw arbaxa waqfaati ñeenti taxawin bi kullin ci kenn ku ne min xumaaj ñoom ñaar wattam mi man matalal al ashwaata yoon ya sabaxan juróom-ñaar ne boo ko dee seet ni nga waxee ne dem bi aw yoon la wàññi ko aw yoon la boo ko dee seet bu juróom-ñaar yoon yi matee benn fu nekk ci ñoom ñaar muy safa ak marwa fu ci ne taxaw nga fa yeenti yoon ba yoroon sa bindukaay di ko rëdd da nga gis ne fu ci nekk da nga fa taxaw yeenti yoon su ko defee nag bu juróom-ñaar yoon yi matee nag kon léegi jeexal nga wër kaaba ak dox safa ak marwa mu fàttali ne la waddu na ngay ñaan bi ma chita ca la la soob bi sax yin ci dox safa ak marwa wa tawaafin ak wër kaaba wa bi safa ak ci safa wa marwatin ak marwa ma xax tiraafin ànd ak tudd bàkkaar bul fàtte nag nee na jamono yi ngay wër kaaba ak ba ngay dox safa ak marwa ak ba nga yéegee ci kaw safa muy aw doj ak ba nga yéegee ci kaw marwa nga bari la ñaan lépp loo bëgg yàlla may la ko maxa tiraafin ànd ak tudd bàkkaar jooje mu daaneele way wa te caa jóg lu tudd say bàkkaar ak sa gàttañ lu jégalu ko sa boroom tey ñaan bu baax a baax ñaanal sa bopp ñaanal mboolem bokki jullit yi waye jibu dana war ak tuxuraani yaari laabiya wa satru ak suturaal awra xalaaman ci ka nga xam ne taafa wër na mooy wër kaaba nag moom nee na dañ ciy sart sarti julli ba mu des jublu xibla nga xam ne kon war ngaa amee laabuk xadas te mooy bu la jàpp waree mbaa sangu farata mbaa sa farata nekk tiim nga def ko ak laabu xabas laabu xabas mooy bañ amee sobe ci sa yaram mbaa ci sa yére su ko defee nag danga war itam sàng sa awra mooy lépp loo xam ne boo doon julli war koo sàng ba tey boo dee wër kaaba war koo sàng nadd bu haa sopp yett yooyu nag ijitalaa feeñ na bi saa yin ci dox safa ak marwa booy dox safa ak marwa moom mën ngaa bañ a amee ak laab waaye nag amee ak laab lu ñu taamu la lu ñu sopp la nag ci góorgóorlu bu baax ba tey nag bu fekkoon da ngay dox safa ak marwa tam yow dong dong kenn du la séen kon boo sàngul awra itam du tee dox ba baax waaye nag taseeg nga taseeg ñenn ñu dox na yow kon war ngaa sàng moom sa awra ngir ñu bañ koo gis ndax sàng sa awra ci yooyu jamono farata lay doon waxudd na nga dellu fa lab bi te nga wax labbayka li musalla xarafata ba julikaayu arafa xam nga bi nga agsee màkka da nga bàyyi woon labbayka ji daal tàmbalee wër kaaba gi wërub nuyoo léegi nag nee na boo wëree ba noppi ba dox safa ak marwa da ngay delluwaat nag di wax labbayka mën ngaa dellu fa sab dal nag di wax labbayka rek te fexe ba bu julli jotee rek nga ñëw julli si ci kaaba gi ndax julli mbooloo ak tuyaaba ju bari ja wa xutubatu saabihi xutba bisub juróom-ñaareel ba tëti dana dikk li sifati ngir melawa ba tey mën ngaa jàng wa tëti te ngay dikkal xutubata saabihi xutba bisub juróom-ñaareel ba li sifat ngir melawa bisub juróom-ñaareel ba ci yoru tabaski dañ koy tudde yow mu siinati ilimaan day toog gannaaw tisbaar xutba benn xutba boo xam ne du toog ci digg ba benn xutba rek lay doon dafay tàmbalee allahu akbar mottalee ko allahu akbar ñu ngi koy defee ci xiir rek di ko tàmbalee allahu akbar mottalee ko ko noonu la koy defee benn xutba boobee da ci jàngal nit ñi ku armalutoon nu muy armale ak nañuy génne dem bi nan ak lañu war a defaat noonee ba bisu arafa loolu lépp da koy jàngale ca xutba ba mu nekkoon na nga fekkee ci xutba ba déglu ko bu baax ndax nga jariñu ca waxru jànn na nga génn taamina shahri juróom-ñetteelu weer wa liminan jëmminan maanaam weeru tabaski bi boo toogee bañ ne tey la juróom-ñett dañ koy tudde yow mu tarwiya ci bisu tarwiya ñu sopp nag nga génn wuti minan maanaam nga bàyyi ko màkk wuti minan da ngay fexe nag ba jullee ji fa tisbaar boo fa jullee tisbaar rek mu baax ñu bëgg na nga fanaan fa boo fa jullee tisbaar da ngay toog julli takkusaan timis ak gee ba jullee fa suba gannaaw bu jant ba fenkee nag nga door a génn wuti arafa ndax boo fanaanee ba xëy mooy doon bisu juróom-ñeenteel nga dem arafa moo tax mu naa bi arafaati nekk na ci arafa nuusoolu naa sunu wàcc taa si xan ci bisu juróom-ñeenteel bisu juróom-ñeenteel bi ci la ñuy dem arafa nga xam ne boo xëyee minan rek arafa ngay wuti bëgg nañ nag bu waxtu yi jegee ci bisu arafa bi nga sangu moo tax mu naa waxta si len na nga sangu xurba sawaali ci jegeeg tisbaar wax durante nga teewe alxutbatayni ñaari xutba ya wajj ma xan na na nga boole duhuray ka sa tisbaar takkusaan wax sorante nga wàññi duhuray ka sa tisbaar takkusaan maanaam bu tisbaar jotee da ngay sangu daal di jawali jàkkay namira bu ko defee bu ilimaan teewee dañ njëkk xutba ñaari xutba bu ñaari xutba ñu jeexee mu jiite mbooloo mi ñu julli tisbaar takkusaan te dañ leen di boole wàññi leen boole gi mooy buñ jullee tisbaar fa saasa dal noddal takkusaan teg ko ca bu noppi tisbaar rek dal ñu dal noddal takkusaan teg ko ca ñu julli ko fa saasa te ñu wàññi leen mooy kenn ku ci ne dañ koy julli ñaari rakka tisbaar ñaari rakk lay doon ba tey takkusaan ñaari rakk lay doon ñu bàyyi ko foofa dem nag taxaw fa ñuy taxaw ci arafa arafa nag moom foofa taxaw rek baax na waaye nag fa ilimaan di taxaw te xëy na du soreek fa yonent bi daan taxaw loola mooy gën moo tax mënaa suma sax topp na nga yéeg aljabala doj wa raakiban mbir mu ngay aji war xalaa wu dooyin ànd akum jàpp suma kon topp na nga nekk moo waasiban di aji taqoo xala duxaa ci ñaan mu xalilan mbir mu ngay aji wax laa ilaha illallah mu butahilan tey aji toroxlu mu salliyan tey aji julli xala nabi ci yonent bi mustaqbilan tey aji jublu xibla taxawaay ba ñuy taxaw njëkk jant bi so warugar la woo xam ne ku ko bàyyi am alamaan dañ koy tudde nag taxaw waaye bu fekkee am nga loo war ni ki gëléem nga war a ci kaw gëléem nga moo gën taxawaay ba itam moo gën toog bu fekkee ni góor la daal moom su ma nee am lu mu war war ca bu ca ba mu nekkee arafa moo gën su fekkee amul lu mu war mbaa la mu war sonn bu dee juru kër mbaa yooyu kon mu taxaw moo gën toogaay ba su ko defee nag na fexe ba ànd akum jàpp fu mën a toll foofa ci arafa te taqoo wax laa ilaha illallah laa ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bari la toroxlu bari julli ci yonante bi te lépp mu ngi jàkkaarloog xibla taqoo noonu taqoo noonu nag ba nga xam ne jant bi sono bu jant bi sooyee nag mu taxaw as ndiir taxawaay sa ñuy taxaw gannaaw bu jant bi sooyee as ndiir sax moom mooy farata ji ba tax mën naa taqifu da nga taxaw xunay xatan as ndiir wax da xuroo bi haa ci gannaaw soxam nga gannaaw bu jant ba sooyee da ngay taxaw as ndiir door a ànd ilimaan na ngeen wuti musdalifa bu fekkee àndu la ilimaan tam nga def noonu rek yow gannaaw bu jant ba sooyee nga taxaw as ndiir daal di fay bàyyi ko wuti musdalifa moo tax mu teg ci wan fir na nga foñ watan sarifu te ngay walbatiku li musdalifa ti jëm ci musdalifa gannaaw bu jant bi sooyee bañ taxaw as ndiir daal moom foofee dañu daal di walbatiku rek wut si musdalifa musdalifa fa la ñu jullee si timis ak gee te boole leen ñoom ñaar moo tax mu naan nakkib na nga jàdd filma zamay ni ci ñaari doj ya alxala may ni ya di ay xalam am na yaari doj yoo xam ne dañoo nekk foofa kuy bàyyi ko mustalifa di jaar ci seen diggante boo mën ne jaar ci seen diggante moo gën bu xattee ba mënu faa jaar nag foo aw rek baax na waqfur na nga wàññi bihaa ca mustalifa waj max te nga boole xisha gee li max di bi jëm ci timis soo ñëwee mustalifa ba ngay jullee timis ak gee te boole leen boole gi mooy ba julee timis sësala ci gee fa saase saasa wàññi gi nag moom gee rek la ñuy wàññi julli ko ñaari rakka waaye timis moom ba tey ñett lay doon wax tut na nga sippi say bagage wa bit te nga fanaan bihaa ci mustalifa wa ax yi te nga dundal lay la taka sa guddi maanaam wàcc mustalifa moom warugar la boo ko bàyyi am alamaan faaw fanaan nga moo gën bu fekkee naroo faa fanaan nag na nga wàcc ba sippi say bagage waaye li gën nag mooy nga fanaan te dundal sa guddi loo mën ci xeetu topp yàlla wasal yi te nga julli suba xakk sa suba waxal lis te nga miir miiral rex la takk sag laxas maanaam boo fanaanee nag ba julli suba fekk ba setagut mi ngi jaxasoo leer ak lëndëm na nga bàyyi koo foofu nag dem taxaw yi fa ñuy wax al masharul xaraam moo tax mën naa xiif taxawal wadduxu te nga ñaan bil mashar yi ci al masharul xaraam lil isfaar yi ba ca set ga dañoo bëgg rek boo jullee suba ci mustalifa fekk ba setagut nga daal dem fa ñuy wax al masharul xaraam taxaw fa di ñaan di ñaan ba nga xamee ne jant baa ngi bëgg a fenk nga door faa bàyyi ko nag wut si minan nag minan nga minan nga nga bàyyi ko woon fa ngay dellu si boo jëm see minan am na fu ñuy wax bat nu mu xasir boo fa tolloo na nga gaaw ba weesu ko moom lay wax naa wa asrixante nga gaaw fii bat ni waa di naari ci xuru waa di naar wasir te nga dox rek kama tàkkoon na nga nekkee woon lil xaqabati ba xaqaba far mi te nga sànni la day xaafa moom bi xijaaratin ci ay doj sabaxat ñu di juróom-ñaar tusaaxu yoo xam def leen mànge min mustalifa te ci mustalifa min asfalin ci suuf kal fooli mel ni sabu fool daa wax ne bëgg nañ nag bala ngaa bàyyi ko mustalifa nga faraale fa juróom-ñaari xeer yoo xam ne boo dikkee moom ngay sànni moom ngay sànnil jamray xaqaba ndax boo bàyyi ko mustalifa xëy ci minan am na fu ñuy wax xaqaba ngay dem sànni fa juróom-ñaari xeer xeer yooyu nag nga fare ko mustalifa la ñu taamu bu doon sànni yee ci des moom ci ëllëg sa mbaa ci gannaaw ëllëg sa xeet sànni yee ci des moom foo fare xeer ya baax na waaye nag bii dañoo taamu nga fare ko mustalifa ba tey nag bu fekkee fare woo ko fa woon it say boo rek fare ko fa nga toll waaye daal juróom-ñaari xeer yi ngay sànnil xaqaba moom ci bis boobu nga delsee minan bàyyi ko mustalifa moom dañoo taamoon nga fore ko foofu ca mustalifa wan xarte nga loj hadiyan hadiyu in awqaftahu ndéem taxawaloon nga ko bi xarafata ci xarafa wax liq te nga watu wasir te nga dox lil bayti jëm ca kaaba ga fa tuf te nga wër wa salli te nga julli mis la daaka naati kem woowale melo soo xëy si minan daal li nga njëkk a def mooy sànni jamre xaqaba juróom-ñaari xeer xeer wu ne boo koy sànni wax allahu akbar boo sànnee xeer yi ba noppi nag bu fekkee yor nga am hadiyu loo xam ne moom ngay rendi mbaa loo mbaa looy loj nga rendi ko bu dee lu ñu rendi mbaa nga loj ko bu dee lu ñu loj gannaaw ba nga sànnee jamray xàq ba nag ba loj addiyu ma nga daal di watu bu dee góor watoo gën jemp waaye bu jempo itam mu baax bu dee jigéen nag moom jemp rek lay def jàppal nag ne yeweku maanaam liñ la aaye woon aayatuñ la ko moo tudd yeweku day ñaar am na yeweku bu ndaw am na yeweku bu mag yeweku bu ndaw bi nag mooy fi mu toll nii bi nga xëy see mi nan ba sànni jamray xàq ba ji ci bisu fukkeel bi bu dee ci loolu muy bis tabaski bi nga sànnee jamray xàq ba jooju lépp li la aaye woon ngir armal gi léegi aayatuñ la ko ba mu des jigéen ak rëbb ba tey laat ko lañ ñu sib ko ba tey su ko defee nag ndegam ñëw nga kon nii ba sànni jamray xàq ba ji loj la ngay loj waa bu dee lu ñu ren nga rendi ko daal di watu léegi kon sa yeboo sol sa yére yu baax a baax nam la neexee ndax aayatuñ la sol yére yu ñaw kon mën ngaa sol sa yére daal di nag wuti kaaba ga boo demee wëri ko wër boobu mooy tawaaful ifaada wër bi moom benn bi rek la na nga ko daan defee rek juróom-ñaari yoon lay doon bu juróom-ñaari yoon yi matee nga julli ñaar rakka foofee ca gannaaw maqaamu ibrahim wër boobu nag mooy tawaaful ifaada soo defee ne tawaaful ifaada ba noppi te fekk yow doxoon nga safa ak marwa ba ngay door a ñëw sësale ko ci tawaaful xudóom kon gannaaw boo defee tawaaful ifaada rek yewee ko nga yewee ko gu magga yewee ko gu magga mooy la desoon ca lañ la aaye muy joteeg jigéen wala jigéen joteeg góor ak li ñuy wax rëbb ak sib gañ siboon lat ko lañ loolu lépp léegi jeex na loolu moo tudd yewee ko bu mag kon waaye nag bu fekkee dangaa defoon tamato kon boo defee tawaaful ifaada du taxagun nga yewee ko ndax da ngay dem ndax da ngay dem doxi safa ak marwa dox safa ak marwa goo xam ne aj gee ko moom ndax yow dox ba nga njëkk na dox xumra gaa ko moomoon ndegam na ngaa def tamato ba tey bu fekkee defoo tamato sax waaye doxoon safa ak marwa kon ba tey gannaaw boo defee tawaaful ifaada da ngay dem ba dox safa ak marwa nag door a yeweeku yeweeku bu mat ba war ji ana nga dellu fa salli te nga jullee ak zuhra tisbaar fi minan ci minan wa bit te nga fanaan irmi sànnil laatu fit bul rawale isra zawali xadi ci gannaaw tisbaaru ëllëgam nga salaas sa jamaratin yetti jamra bi sabahi xasayaatin ci juróom-ñaari jamraay li kulli jamratin ñel bépp jamra waqif te nga taxaw li taxawaati ngir ñaan ya tawilan lu yàgg israel oola yey ni ci gannaaw yaar yu jëkk ya ak xiran na nga mujje xaqabatan xaqaba wa kabbiran te na nga wax allahu akbar ku laram yin ci bépp sànni daa wax ne nag bisu fukkeel bi nu koy woowee tabaski bu dee fii ci nun boo ñëwee màkka ba def tawaaful ifaada ba noppi dangay dellu nag fexe ba fanaani minan bu fekkee mën ngaa del julee jëfat sibaar ji mu wax baax na waaye moom daal fexeel ba fanaani fa ndax guddi googee ak gësës ca moom muy guddi fukk benn ak guddi fukk ñaareel mënoo ko ñàkk fanaan foofee ci minan bokk na ci waru gar yi moom laa doon wax naa yaari guddi la yoo xam ne ñetteel ba mën naa ñàkk waaye yaar yooyu mënuñoo ñàkk mooy bisu fukkeelu bii tey ne tey ji nuy jànge mooy bisu talaata bu fekkoon ne mooy fukkeelu fan